Génération FM. Génération FM, the la ñu nekk instant bi fu mu toll nii si final la ñu nekk te final bi maanaam euh, ambiance la boo xamante ne ñu naan fête la te man fête boobu gëm naa ko mais fête bi pour supporters la du suma joueur yi suma joueur yi xamuñu fête juste ñun dañ koy jël ñu loolu mooy suñu fête bés bu ñu ko jël bos boobu mooy suñu fête ñun instant bi amuñu fête parce que boo xoolee instant bi supporters ñu ngi fête mais ba léegi ñu ñu ngi entraîné. kon da lay leer ni ki final bi nii ñun daf ñu jaral lu nekk pour ñu jël ko. man loolu mooy suma suwee depuis très longtemps parce que Kade Kansala yàgg na toog boo xamante ne demul sax qualifié wul sax phase phase euh, phase deuxième tour yi nii. boobu depuis 2007 la ko suñu grand yi defoon fii nii jusqu'à présent ba léegi nii kenn gisatul ASC Kansala cadet mu affiché wu zone euh, si kii bi euh, nii sax mooy Aline Sitoé di représenté ASC bi instant fu mu toll nii booy ñoo am chance daaw def ko ñu toog demi final ren yàlla xéwal leen ñu ramb stade boobu nag pour war a représenté ASC bi au niveau euh, ni sa zone 3 de la final léegi instant fu mu toll nii dañ ko war a mën a récupérer lu ñu moom la amuñu pression ñun miin nañu ko yàgg nañu jouer final yàgg nañu bés bu nekk fekk nañu fii nii kon xale yi dañoo juddoo fekk final kon du loo xamante ne lu ñu xamul la lu ñu xam la te ñu xam nañu bu baax ni final lu ñu koy fubale final ça ne se joue pas ça se gagne tout le monde le sait. massivement parce que man lancé woon naa suma supporter kenn bu ma ñëw seetaan si phase de poule yi ba si quart de finale ba demi finale yëpp kenn bu ma ñëw seetaan mais final bi je les invite à venir regarder les les gosses. waaw parce que seen liggéey la seen seen mën-mën la parce que boo gisee ñu yëg a tey fii nii tey seen mën-mën la du dara. lu ñu mën la te lu ñu entraîné la parce que tey yaakaar naa ne tey li nga entraîné loolu rek mun loo ko li nga entraîné loolu ngay wane te booy def nañu ay jéego yu rafet te ñun ñëpp ASC bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen di sant parce que senior dañuy teel a toog. yaakaar naa mën a doon lu diis man quoi parce que depuis daaw man maa doon capitaine ay eh, ASC bi depuis daaw quoi yàlla dimbali ma daaw dem ba demi-finale ñu toog demi-finale la ñu toogee daaw par série ren yàlla dimbali ñu ñoo ngi nii ba final waaw yére bi daal moo naka jël coupe bi daal incha allah bu si yàlla àndee. waaw non loolu moom yàgg naa ko rêvé depuis bu may nekk tout tànk maa ngi sama grand frère sama grand la gaañu moom mooy newoon ci sañoo yi foofu noonu moo doon jouer militaire moo doon jouer 6 bi waaw man tamit ñu ma may takkee nii brassard yàgg naa rêvé loolu noonu depuis may nekk tout tànk dem ba ba di jouer si ASC bi mu indi leen coupe waaw loolu moom. yàgg na nekk sama rêve daal maa ngi koy bëgg a defaral beneen t-shirt boo xamante ne moom laay jiital si biir te incha allah jour final bi dinaa dugal ma woon gaay ni moom la quoi. waaw ñun pare nañu pour euh, affronter suñu adversaire bi pare nañu physiquement moralement et mentalement. waaw toutes les conditions sont réunies pour ñu jouer final bi actuellement daal bés bi la ñuy xaar ak heure bi rek quoi. Euh, comme ñoom loolu la ñuy wax bu soobee la ñu xaar mais xam naa ne moom coupe bi moom bu la fii ñëw. waaw bu soobee la kasih tamit lay ñëw bu soobee la. ñu si kawam waaw ñu si kawam ñu liggéey rek ku liggéey ñu si kawam waaw yaa ngi préparé baax ñu waaw. force waaw bu yoree bàyyi si mbagg terrain bi doon koy bàyyi terrain bi waaw ni nañu gëm di gëm ñu dafa trop kon suñu dem ba final ñu fu bu trop quoi man la message la FM. Best Radio. Génération FM.